loolu day am nañu ci mbett moo xam ni ak xéewal yoo xam ne mënuñ ko woon a feneen fu dul fii ba tax na maa ngi woo bokki jullit yépp ci lii ndax njariñ la ndax xéewal la naa ko ñëpp maa ngi koy yéene bokki burit yi sunu bokki taalibe rawatina nag cantakoon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 liggéey bi eh, ci ci ay bis gi rek war naa mën a yegg ah, waaw ah, waaw yi tàmbali nañoo ñëw suuf saa ngi fi ñu ngi déca bi presque pare na suuf si ak xeer yi tey dina yegg kon suba lañuy tàmbali di ko sëkk jàpp naa ni fii ñaari fan gën gaa bari moom noppi man xaadani sukura fi anfasi ma